mbokk yi asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi euh, bokk na ci euh, ponk yi gën a fës euh, ñaari fanub grève bu ñuy liggéey ci secteur primaire maanaam wàllum sàmm gi napp gi ak mbay mi dañoo bëgg ñu delloo leen seen ndàmpaay yooyu ñu teqoon ci seenub payoor intersyndical bi ëmb liggéeykat yi fas yéene amal ab doxub ñaxtu alxames waaye itam nara daje ak ministre bi ñu dénk wàllum fonction publique bi ëllëg Ousmane ñoom ab njàqare la ñu nekk ndax jamono ji euh, pepp bi muy euh, dugub ba ñu bay euh, ñu ne mu amul qualité kon boo moyul la nar a ca tool yi du baax ñu bëgg ñu yokk njëgub gerte gi ngir fexe ba lépp lu ñu bay bu jeexee ñu bañ a nekk ci ay jafe-jafe foofule soxna yi wan lor te nekk ci commune bu Fann Point E ak Amitié léegi dinañ leen toppatoo ba keroog ñuy mucc mairie bi moom moo ko nar a def mu jaarale ko ci ab programme bu muy duppee yaay ak ak doom ñu def ci lu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti million ci sunu ay koppar bépp frais médicaux kon dinañ ko supporter ba soxna yooyu di mucc ci wàllum politique Malick Gakou mi amal ab tournée ay fan a ngi nii ci biir réew mi moom nag nee na mu ngi artu président Macky Sall nee na kujje bi du ñu nangu benn yoon ñu leen di xoxotal wala ñu leen di xuuxal ci ay dox yu ñuy def ci biir réew mi loolee lépp ponk la nees tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaaree ba noppi xibaar yi dañ koy euh, dooree ak euh, cong boobule amee woon fële euh, ca jagal yi ca département bu Linguère ba ñu faatoon fa benn commerçant ña defoon lu ni mel nag teg nañ leen loxo ba nar leen a yóbbu tey jilee ci kanamu procureur ba foofu foofule ca Louga mu di ay samba bu yore woon ay gannaay gànnaay ñëwoon songu village jagali boobu nekk ci commune bu Barkédji ca département bu Linguère ñu faatoon fa kon ab commerçant bu doon wuyoo ci turu Elimane ginnaaw euh, kooku ñu faat amoon na itam ñeneen ñu ci am ay gaañu gaañu ak koppar gu takku euh, bu ñu fa jëlee woon liggéeykat yi nekk ci secteur primaire maanaam ci wàllum euh, mbay mi euh, sàmm gi ak napp bi euh, bootu ci gouvernement bi ñoom fas yéene amal ab doxub ñaxtu alxames waaye laata loolu tey jile ak suba dañoo bank seeni yoxo muy leneen lu ñuy làbbaliwaat dañoo bëgg ñu delloo leen seeni ndàmpaay yu ñu dindi woon ca ñoom ñoom ñu fas yéene sax jàkkaarloo ak ministre bi ñu dénk wàllum fonction publique Gallo Ba ëllëg intersyndical bi amaloon ab assemblée générale ca déglu euh, ci euh, micro Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb euh, xamal nañ ne donc marche bu ñu gàntaloon vendredi bi passé automatiquement dañoo dugalaat beneen demande de marche nga xam ne alxames bii ñu dégmal si ñaar fukki fan donc si weeru octobre bi la ñuy dem te yaakaar nañ ne cette fois-ci préfet bi donc du am lay pour wax ne donc voilà jour franc ñetti fan yi franc yi ñu respecté wu loon bi yoon def nañ ko six jours avant donc euh, si biir loolu waxtaan nañu donc euh, ba sax euh, am ay xibaar yu wóor nga xam ne à travers ministre de la fonction publique mu yónnee ñu bataaxal ne donc gouvernement bi sàkku na ñu waxtaan te ñun musuñoo dàq waxtaan boobu donc comme yàlla def na donc ñoom enfin lañ koy wax nangu nañ pour waxtaan ak ñun donc loolu dañ koy rafetlu dinañu dem si waxtaan boobu euh, te si biir waxtaan boobu aussi dinañ fee toftal lépp loo xam ne donc euh, euh, suñuy suñuy tawat lañ si biir loolu nag au-delà si indemnité bi donc ñuy réclamer nga xam ne légitime na dañ siy toftal donc indemnité de logement. moom Gallo Ba di ministre bi ñu dénk fonction publique mu nga woon fële euh, ca Petite Côte ba ca lancement élaboration lettre politique sectorielle euh, kon euh, ci wàllu woowule mu ne fexe ba indi ay coppite ci wàllum administration bu Sénégal ngir mu gën a méngoo ak xarala yu bees yi waaye tamit mu gën a baral liggéey bi moom Gallo dafa jàpp ni jot na ngir administration def beneen liggéey bu bees doxalin wu bees dañ koy déglu moom ministre fonction publique ci Mamadou Gueye. administration modernisation nag moom mooy fexe ba administration méngoo ak jamono fexe ñu mën a numériser fexe également ñu euh, ñu dématérialiser les procédures parce que tamit administration sénégalaise li koy bàkkee mooy dafay dafay yéex souvent dans traitement des dossiers mooy fexe ba administration bi gën a jege administré yi am na également programme yu am solo yu ñu def mooy construire ay centres au niveau des régions pour que ñu mën a gën a jege population yi gën a jege askan wi mais gën a jege euh, ñiy liggéey ci administration pour que seen ay traitement dossier mën a gaaw donc loolu ci lépp mooy fexe ba moderniser administration fexe ba gestion ressources humaines également ni ñuy gérer euh, euh, ressources humaines ci administration ñu ñu moderniser ko mu nekk en phase avec exigence su monde actuel bi pour que mu mën a pour mën a fexe ba performance ak gestion axée sur les résultats mën a nekk une véritable réalité au niveau ci ci administration nekk sénégalaise te mooy li nga xamante ne moom le président de la République bi moo bëgg ba fexe ba tey transformation secteur public dans son organisation dans son organisation mais également ci procédure mu mën a nekk en phase avec exigence su monde actuel bi. mbootaay bi ëmb ñi ñu toxaloon na ca liggéey bañ doon amal di yaatal rutu ñaay bi ñoom dañoo bëgg la warloo ak ñoom ñu def ko ñu ne bokk na ci euh, fay leen euh, seen suuf buñ ko xaymaa ba xam ni koppar gi nii la toll ñu jox leen ko ña bokk amaloon nañu ab euh, doxum ñaxtu ngir fexe itam ba ñu wutalaat leen feneen fu ñu mën a dem dëkk Ibrahima Seck moom mooy secretaire général bu collectif bi ci micro Abdoulaye Anne depuis suñu jamonoy baay ba tey boobu ak léegi pendant des années mu ñëw tey bëgg fi benn projet route des Niayes ne dañu ko fay bëgg a def ànd nañ ci projet bi à 100 pour cent xool leen tali jàll ci état bi mel depuis 2016 ba tey ñu ngi natt suñu kër di natt di nattaat di nattaat dem nañ conciliation même pas un mois premier jour ba ñu egsee préfet du ñu menacé di ñu ne bu ñu nangul nañ jël suñu xaalis yóbbu caisse et dépôt consignation daaneel kër yi ku ci bëggul après nga topp état du Sénégal amul dara lu ñu fay lu dul prix mètre carré 141 000 francs mooy prix bâti kese la ñu fay ñu ne leen foncier ñu ne duñu fay foncier parce que domaine national la ñu ne duñu fay bàyyi parce que ñu ne bàyyi domaine la nan la la nit ki ñëw ne di la fii ay caaroy kër yoo xamante ne ay 8 millions de francs ay 16 millions de francs ay caaroy terrain bi gën ndaw bi gën ndaw 50 millions 70 millions 80 millions 100 millions am na fi ci kaw tëli bi ñëw duñu fay ay kër yoo xamante ne ay 8 millions 12 millions 4 millions loolu du ñu à la dernière minute ñu dem ba foofu ñu ne ñu non locataire kenn du ko fay locataire bokkul ci projet bi ñun loolu borom duñ ko nangu tey parce que ñooy fay OPV ñooy fay patente ñooy tax borom kër fay IR ñooy fay TVA impôt lépp locataire bu ñoom tey lii am kon ñoom duñ nangu tey état du Sénégal bëgg ñooy troxal duñ ko nangu duñ duñ ko nangu suba gare Thiaroye bi moo gën a nekk moo bu gën a mag fii ci banlieue bi bu dul loolu nañ ko jox ultimatum xamal ngeen jéggal ma ci njumte bi Abdou jàll kon moom mooy euh, moom moo yore kàddu ñooñu ñu bëgg a tuxal ngir yaatal tali bi euh, dem fële ca ñaay ba fële ca ndukkumaan béykat ya fa nekk ci ab njaaxare ak tiitaange la ñu nekk jamono ji ndax euh, dugub ba ñu bay qualité bi taxu ko baax ba dañuy ragal bu ñu ñëwee ba war a kon jëlee la nekk ca tool yi dara du ca baax ñuy fàttali état bu Sénégal ni jamono ji dafa jot ñu jël kilo gerte jaayee ko juróomi jaaye ko téeméer kilo bi ñu euh, jëlee ca tool ya jeex ñu mën a euh, bañ a nekk ci ay jafe ci ay coono Oumar Ndiaye ak Boubacar Fall bokk ca diwaanu Kaffrine. fi mu toll nii ci ngóob ak deqi ba ci dakkase ci la baykat yi ndukkumaan yi toll waaye li leen jaaxal mooy mootu dugub yi nga xam ne jamono ji amul benn pepp. mooy dugub moom vraiment am na attaque parce que dugub ji li ci bëri dafa am lem. donc dugub ji daal vraiment mooy situation bu nga xam ne vraiment nekk na problème te loolu jaaxal nañu nag parce que man juste maa ngi demandé ba léegi lan moo waral loolu ñii ngi wax ne taw bi la ñii ngi wax leneen ak leneen. Abdoulaye Wilane député bu Kaffrine nekk tim président conseil départemental bu Kaffrine gis ne lu nu mel daanaka dafa law ba ci diwaanu Bawol ak Njàmbur ba tax na muy sàkk ci nguur gi ñu amal ay gëstu ci wàll yu nu mel. li ñu seetlu ci biir Ndoukoumane moom la ñu seetlu moo xam diggante Kaffrine ba ba ngay yegg Daaru Moxti ci Louga jëm boori Tiwaawoon jaar Jaks Saaw biir fatig muy Bawol ak euh, Siin mooy ne dugub dana am rendement bu doy waar bu néew par rapport ak liñ joon yaakaar ñu ngi ci jamonoy jàngat ak saytu budget bi ci fukki fan yi ci assemblée ñu ngi sàkku ci gouvernement bi mu samp ay commission yoo xam ne ci région bu ne DRDR ba ak DDR yi dinañu ànd ak commission affaire sociale ànd ak ay kangam ñi dem xool tool yi pour que li jëm ci wàllu souveraineté alimentaire lu jëm ci wàllu sécurité alimentaire ah wax dëgg yàlla gouvernement bi am waaye ak kayma yu mat sëkk ba ñu sóoraale ko baykat yi nag jàpp li leen mën a wàllu ci nawet bi du leen lu mooy kilogaraamu gerte gi état bi jëndal leen ko téeméeri dërëm te fi mu nekk nii foofu lañ toll te mooy nekk suñ soxla bi gën a mag fi mu nekk nii nañ ñu wax prix gerte bi te nañ ñu ko yóbbul ci téeméeri dërëm parce que ren toll ni nag gerte gi fees na dell ak mootu mboq yi waaye dugub ji moom atum ren ji dàggantal ci ñoom jërëjëf euh, Omar Ndiaye euh, dañuy dellusiwaat fii ci ndakaaru rawatina ci euh, commune bu Fann Point E ak Amitié soxna ya fa nekk te wannu lor maire bi bëgg na leen taxawu bu baax a baax mu jaarale ko ci benn programme bu ñuy dippee mère enfant maanaam yaay ak doom programme bi lancé nañ ko sax dafa fas yéene jël lépp luy frais médicaux soxna yooyu wannu lor ba keroog ñuy mucc foofu budget ba ñu tànn ngir fexe ba jàppale soxna yooyu mi ngi toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti Yong ci suñu ay koppar dañ ciy déglu Pala Samb moom mooy maire bu Fann Point E Amitié ci micro Aminata Mbaare Sow ak Mar Diagne pour euh, def li nga xam ne mooy signature ak lancement wu programme mère enfant dañ ko digg woon ci campagne électorale bi ñu bugg ko respecter programme mère enfant nag moom mooy euh, au niveau de la commune dañu fas yéene à de tey jii nga xam ne def nañ lancement bi bépp jigéen boo xamante ne dëkk nga ci commune Fann Point Amitié war na lor jour bi ngay ëmbee ba bés ba ngay wasin 42 jours après bi ngay wasin lépp loo xamante ne prise en charge la mairie bi moo koy fay say ordonnance mairie bi koy fay say consultation mairie moo koy fay say analyse mairie moo koy fay échographie mairie moo koy lépp loo xamante ne daal jub jublu na si consultation wu euh, jigéen mu doon Palla Samb di maire bu euh, Point E Fann ak euh, Amitié ay euh, soxna dajaloo ci benn mbootaay duppee seen bopp jigéen jigéen yi liggéey fii ci Sénégal dañoo bëgg ñu taxawal benn observatoire buy fexe ba ñuy dindi boddikonte yi ci bërëbu liggéeyukaay yi diggante jigéen ak góor ñoom nag mu di ab plaidoyer bu ñu def fële ci diwaanu Diourbel ci jamono bi ñu doon taxawal réseau femmes travailleuses foofule ca ca Diourbel Fatoumata Bintou Yafa moom moo jiite réseau boobule déglu ko ci euh, sàkkute fi ñu yëkkati ci micro Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. jigéen ñi nga xam ne dañuy xëy liggéey de dafa mel ni fi ñu leen def amuñu fa droit nekk nu nekk jigéen dafa mel ni am na lu mu tënk ci seen àq ak seen yeleef Fatou Bintou fa moo di présidente réseau jigéen ñi nga xam ne ñooy liggéey ci Sénégal moo ko xamle. liggéeykat fexe ba ñu participer ci élaboration ñu bañ a bedd kenn ñun ay jigéen lañu du ñu yore ay droits te du ñuy réclamer suñu ay droits de participation à tous les niveaux de négociation di nga koy réclamer. xaalis bi moom la ñu gënoon a jiital mais yaakaar naa léegi war nañu mën a changer nag ñu teg nit ci biir loo xam ne au cœur ci biir entreprise bi nit dañ ko fa teg. loolu yi tax ñu ne luwaa bi nga xam ne dañ leen ko wote leen fekk daal ñu siiwal ko ndax mu mën a am effet. fa fulla lu ñu torop duñ koy wax rek mais jëfewuñ ko léegi duñu bëgg lu ñuy wax nañ koy jëfe am nañu loi sur la protection de la maternité. lool rek la ñuy laaj ndaxte bëgg nañu tegal leen benn observatoire boo xam ne nii day tax kenn du gam-gamle kenn ku nekk ci li mi lépp liggéey. nañu ne nañu teg observatoire de la non discrimination nañ ko teg nañu fexe ba loi boobu doon réyalité pour ñun jigéen. surtout nga xam ne si lool moo ñuy bloqué. jigéen ñi nga xam ne ñooy liggéey ci Sénégal nekkoon week-end bi ci diwaanu Ndiarème doon installé seen cellule régionale bu RENAFES jigéen ñi bal tey ak euh, li leen itteel euh, pétrole bi ñu nar a exploité fii bu réew bu Sénégal fii ci réew bu Sénégal dañ cee war a jëriñoo bu baax a baax euh, lu bëri luñ ca jëlee dañ ko war a dugal ci ay secteur lu ci mel ni wàllum wér-gi-yaram wàllum éducation ngir fexe ba anam yi soxna yooyu di dundee mu gën a ñoŋ rawatina ñu nekk ci kaw gi société pétrolière yi ak kilifa yi nekk ci réew bi ñu ngi leen di ñaax ci loolu ñu mën koo defal ONG bi di Alliance des acteurs des métiers et des des énergies moom amal benn atelier doon waxtaan ci loolu fële ca Palmarin ca Fatick Aminata bi ak Abdou Karim Bey ñoo ñu fa teewal. ak ñaax la goo xam ni dañ ko doon def jëmale ko ci autorité municipale yi nekkee ci Palmarin jigéen ñi ak xale yu jigéen yi dañoo war gis seen bopp bu baax a baax ci exploitation pétrole bi nga xam ni moom la ñu gis boo xam ni sorewul dara Sangomar te foofu dañ faa a exploiter bu yàggul dara ñu jàpp ne rek dana impacter bu baax a baax ci askan wi. moo xam ci ay investissement moo xam ci ay programme maanaam jigéen ñi daal soxlawul ñuy nekk ay techniciens pétrole ak gaz waaye dañoo bëgg ñoom ñu taxaw temb euh, maanaam laaj seen ay ak ak ay yellef wax fii euh, ñuy découvrir pétrole be gaz bi gannaaw bi ñu ko découvrir nee nañu 600 milliards la ñuy xaar chaque année lan mun la ci jigéen ñi moom. ci île du Saloum yi am na ci jigéen ñoo xam ne ba léegi ngir ñu jot ci paju mu am solo jafe-jafe la ndaxte bërëbu fajukaay yu baax moom moo fa bëriwul am na ci école yoo xam ni itam na mu bindoo moo tax am na ci xale jigéen yoo xam ni ngir rek ñu nekk fa te duñu am benn gàllankoor léeg-léeg duñ ko mën entreprise pétrolière yi nag ñu leen di ñaax ñu wut ci loolu ay safara éducation santé ak accès aux énergies nu ñuy def ba jigéen a dooleel et pour ñun euh, dañoo bëgg état bi ak euh, acteurs yëpp maanaam ñu profito ci li nga xamante ne mooy découverte pétrole beeg gaz bi ngir gën a mën a dooleel secteur wu santé éducation mais également permettre accès aux énergies aux femmes. ngir rek fexe nu jigéen ñi ak itam xale yu jigéen ñi gën a mënee jot itam ci li nga xam ni moom la ñuy woowee énergie renouvelable moo waraloon nag ñu organiser ab lël foofee ca Palmarin ab activité la boo xam ne nag ONG bi ñuy woowee AMES ñoo ko organiser. te jamono bi nga xam ne dañu nekk ci euh, changement climatique dafay jaaru. ñu xool suñu doxalin par rapport ak li lépp li nga xam ne donc euh, exploitation mun na ko am n'est-ce pas wala mun na ko am comme jeexital si activité yi nga xam ne euh, nit ñi a euh, liggéey ak jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo di nguur gi ne ñu daañu dem ci yeneen région yi liñ ci bëgg mooy fexe ba nu kilifa yi gën a dugal jigéen ñi rawatina ñu féete ci dëkkukaw yi ci nit ñi exploité pétrole gaz ak yeneen ba léegi li yitteel askan wi village yi nekk fële ca frontière bi dox diggante Sénégal ak bi nekk ca frontière bu Bogal li ñu bëgg mooy ab hôpital bu tax ñuy wax ndax ñaare bu ñu waree faju dañuy am ay jafe-jafe yu metti askan woowu nekk ci département bu Bunkiling sax dañoo mujj ay association ñoom ñoo fa ñëw ci ñaari fan di xool seenub wér-gi-yaram te duñ ca fay dara Bakary Konte Khali Diamé nekk chef lieu commune ak arondissement moom nag mu ngi nekk ci Kabada population yi nag dañuy am ay jafe-jafe tar pour nag mën a bénéficier wu benn consultation si médecin lool moo waral mouvement Nouroulaye ak association santé et développement humain daal di amal ay journée de consultation gratuite docteur Abdoulaye Diédhiou di dellu si si feebar yi ñu fekk fii ci gox bi. li gën a bëri euh, ci consultation yi ay syndrome euh, ulcéreux ay éruption cutanée surtout chez les enfants. Euh, gis nañu ay cas de malnutrition aussi chez les enfants euh, ay problème hypertension ay cas de d'hypertension artérielle ak euh, quelques quelques cas d'hyperglycémie. Ndelam Loum dëkk fii ci Bogal di ko rafetlu. amuñu xaalis pour dem hôpital wala pour dem defi écho wala amuñu pour dem. génn dëkk bi dem si yeneen dëkk yi pour dem defi écho genre yooyu noonu wala ñi nga xamante ne dañu am problème bët ñu ñëw indi la ko fii ba sa biir dëkk pour nga def ko te doo fay dara loolu noonu ñun bégte la si ñun te ñu ngi kontaan bu baax a baax. fii nii boo amee problème bët da ngay dem ba Gambie wala ngay dem fii ba Ziguinchor genre wala ba Dakar te xam nga loolu noonu du jëpp am moyen boobu noonu pour def ko. occasion na nag ci xalif général bu Bogal di Thierno Abdourahmane Bari di ñaan gouvernement bi ñi daal di def seen poste de santé centre de santé pour jàppale askan bi. jeexital nawet ci la feebar bi di gën di bari day bari ci xale yi day bari ci mag ñi ñëppuy feebar. et ñu bari jotuñu seen seen loxo jotul seen gannaaw. ki ñi fi ñëw gis nañ mbooloo mi ni mu toll gis nañ centre de santé bi. nu mu toll kon côté boobu e, ñu ngi ci ñaanaat lu koy yokk dem ba mu nekkee hôpital boo xam ne tund wi yëpp danañ ko mën a jëriñoo. après nag consultation bi population yi may nañ leen ay garab mouvement nuru Laay bu Cerno Abdourahmane Bari di ne dina wéyal amal action yi le e, fii ci gox bi. ñu egsi ci euh, xibaaru euh, politique ak euh, tournée nationale bi Malick Gakou di def ay bés a moom mu ngay artu njiitu réew mi Macky Sall nee na kujje politique bi du nangu benn yoon ñu leen di jéem a xoxotal wala di leen jéem a tiital ndax dafa jàpp ni dem ak dikk ak li nga xalaat nga wax ko ci réew bu Sénégal suñu chart moom moo ñu ko may muy constitution bi moom El Hadj Malick Gakou la ñuy déglu nekk njiitu grand parti ci micro du Fall ak Mar président Macky Sall nag seetlu nañ ne kuje gi fu ñu dem ci Sénégal man tournée bi may dem foo dem police nañ la taxaw interpellé la wala gendarmerie interpellé la buñ la jàppul daañu la intimider buñ la intimider ñu sànni la lacrymogène loolu jaaduwul. parce que Sénégal quand même mënuñu bàyyi ne Macky Sall ak ay waayam lu neex ñu def ci réew mi ñun kuje gi bu ñu yëngatoo ñu jàpp ñu ñu dóor ñu ñu bëgg ñoo toroxal loolu nag. duñ ko nangu duñ ko nangu parce que Macky Sall moomu réew mi kenn dénku ko kenn dénku ko réew mi pour mu jël Sénégalais yi jàpp di dóor di tëj lu ko neex mu def Sénégalais yi dénkuñu ko senegal pour loolu dañ ko dégg Sénégal pour mu liggéey réew mi waaye non seulement liggéeyu réew mi Sénégalais bu yëngatu mu dóor Sénégalais bu yëngatu mu tëj Sénégalais bu yëngatu mu andil la bundu xatal loolu kenn dootu ko nangooti te bu neexee la ku léegi ñu taxaw man maa ngi nekk tournée mais kenn mënul fexe ba sama tournée bi dama ko def ba mu jeex président Ousmane Sonko nag ko dal démb moo ma dal barki démb dal keneen waaye comme moom la dal démb. mënuñu dudul euh, manifester ko suñu solidarité wax ko ne ko na gën a xuus ci li mu nekk parce que li mu nekk mooy yoonu dëgg. dañuy jàll ci ponk bu mujj ci xibaar yi muy yëglekaay yi li ñu xëyee tey ñu ànd ceeg Serigne Saliou Seck.